jafe-jafe ci mbirum euh, matériel électoral mais gis kan gis nañ que ne euh, mi ngi mi ngi réglé wu euh, li ñu gis daal man li nga xam ne mën naa ci am satisfaction mooy gisuma nit ñi di xuloo di xeex di dóorante ak yooyu bien que pendant la période de la campagne amoon na mais en tout cas ci vote bi nii gisuñu ko lu am solo la loo xam ne tamit dafay wane ne dafa am une maturité dans le cadre du du sénégalais sénégalais mooy koo xam ne tey pendant la période de campagne mun nga ko dégg mu dënn yi xaw a tàng nit ñi di waxante yenn affaires yi ce qui n'est pas normal d'ailleurs d'accord mais euh, li ñu constaté mooy bu vote jotee nit ñi dañu jóge seen kër dem voter tranquillement après dellu seen kër xaar résultat yi. bon pour l'instant man li ma gis. am na satisfaction parce que ni ñaa ngi rang ba léegi rang yi jeexagul donc su fekkee ne ba heure yi ñi ngi nit ñaa ngi rang je suppose que taux de participation dina tane bon mënu ma ne dina am un taux de participation record mais dina tane daal parce que élection locale quand même taux de participation bi c'est toujours moins élevé que les législatives et toujours moins élevé que les présidentielles donc yooyu yooyu la daal waa xale yi ñëwuñ noonu waaye ah xëy na ñu ngi xaar 5 euh, heures wala 6 heures xëy na xaar ba añ ba pare soog ñëw. <laughs> man du wax ci élection man fii de citoyen daa ngeen fi gis mu taxaw ñu koy laaj avion moom dafay wax avion rek ci élection yi waaye lépp loo xam ne dafa jëm ci mbirum euh, campagne jeex na vendredi minuit.